boy, boy, boy. ñun moom ay Baay Faal lañ kom ñoom te ay murid lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo lu sëñ bi wax moom amul dara luñ ci teg lu du def jëfe Baay Faal yi fii buñ fi ñëwee tonni la ñuy def waaye duñ dindi ndax ñun gëmuñ ko du sëriñ Tuubaa buñ ne woon tey bakkan lay laajte ñu joxe suñu bakkan xam nga te gëm nañ la ci ginnaaw moo dàq tey fii nag moom fëgg jaay lañ fi doon jaay ak bali fëgg jaay waaye biñ ñu waxee ne sëñ bi nee na dañ ne moom lii sax dañoo yeex waaye ñoom fekkoon nañu dindi ba noppi di ci di ci gën a rafet rek gën a dalal suñu xelal di gën a gëm ne moom suñu digg ci ndigal rek la ñuy dund ndax ñu nag Baay Faal koy ànd di ko dindi ba ñu sëñ bi jox tin bu weesoo ndigal lu mu ñu jox buñ ne feneen ñu dem foofu bu ñu defaat leen ñu defaat ñu daal fi ni ni suñu bagage la ñuy takk di xaar sëñ bi ñu joxee ndigal li ne le 24 pour ñu jële fi bagage yi avant le 24 bari na ñoo xam ne dañ fiy jaar naan yàlla na bis bi si bañ mën a saccager def liñ bëgg a def kon déjà bu ne dafa am benn foule banditisme boo xam ne ñoo jug def ñaawteef bi après loolu ñun lu ñuy mun a gëm la lu ñuy mun a gëm la puisque Baye Fall du fonctionner nii quoi ndax toujours man dama koy wax naan rue bi nii boo xoolee bu doon un million de personnes mi ngi fi diggante Baye Fall ak Mouride a fi ne diggante Baye Fall ak Mouride a fi ne non bettuñu de fii ay bant rek lañ doon tas waaye amul benn matériel boo xam ne nii bu ñu bu ñu denaat bu yàqu la ndax dañoo li ñu wax mooy ginnaaw suba la ñu waxoon ci la ñuy mujjee kon ñoom bu ñu del si ñu ne Baye Fall yi ña nga ca corniche ba ña nga gede ña nga daar ñi am ñeneen ñu yoolee ku ñëw kon ñooñe da ñooñee mën ni leen tudde leneen lu ay Baye Fall Baye Fall moom ñu ngi ci corniche bi amu ci kenn koo xam ne ndigal lii naqari na la ndax dafa jóge ci ku tedd di Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw ci ku tedd di seen bi mu demee na moom liggéey bi lii mu ñu def nii danoo jàpp dafa gën ci ñun ndax man mii wax ak yéen de giñ naa gi sëñ Tuubaa de ak samay morom yëpp bu suñ mu taxaay taxawoon seen buntu kër ni génn leen sama kër yi wallaahi sam dañu fa faraat su yi dañ koo jël ruu jox ruu jox ko suñ mu taxaa lépp lu mu def duñ ko booleeg lu mu defut rafetlu nañ ko lool te ñu ñëw en masse plus de cent personnes ñëw di di def di n'importe comment da ngay gis acte yi rek nga xam ne lii du jëfi Baay fal mais riz bi fii ay Baye Fall ki murit a fi ne ñun xam nañ comment ça se fonctionne un Baye xam nañ ni Baye Fall di dunde man à tout moment dama koy wax gars yi nii rassurez-vous Baye Fall yi kenn gënu leen a nite kenn gënu leen a nekk ay intellectuel dunuy dof pour loolu toujours ñu koy bàyyi xel qu'on soit clair et net Baye Fall yi ay nit lañ duñ fonctionner comme ça. masokaas bi tamit li am mbetteel la ma koy mettilu ci benn côté. ndax côté bi mooy dañ ñoo joxoon ab délai tey jii ñu xëyoon mobiliser doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci barab bi ñu ne ñu ngi ci corniche bi suñ paree ci corniche bi dañuy dem sëkk kàmb yi def nañ tournée dem nañ ci corniche bi ba ñuy fay dem ña nga tolloo fa ñuy wax jàkkee seng jàkkee seng wuti corniche suñu Cheikh moom sëñ nga xam ne ko dañ ko wëral tuur bi jeexee ñoo waroon dem ca kàmb yi kàmb dem naa fekk naa fa ay oto xeer yi ñu toj ci corniche bi ña nga yóbbu ci kàmb yi kàmb yi daa waroon a fekk ba fees dell ba maasaloo ñu door a ñëw Touba marché bi marché Ocass bi door koo door koo door koo toj ñi nga xam ne ñoo yàq ñi nga xam ñoo yàq nag jar nañu leeral la leeral mooy am nañ information bu wér nañu ne ñii ñi dugg ci marché Ocass bii te jii ci àjjuma jii dugg fi diggante 11h ak midi duñu ay Baye Fall yi nga xam ne ñoom lañ joxoon marché bi. marché Ocass bi sëñ Abdourahim Fall moom suñ Modou Aminta Fall moo yore bopp bi moo fi waroon moo fi daa moo fi daa teew moom la ñuy waxal moom ko waral ne am na wàcc fii seen wàcc seen oto dégg ñi ne gaa yaa nga gaa yaa nga gaa yaa nga corrigé cheikh ñu neñ ko nañ fi jaar barkeelu yor seen i miin ba yàq bi bagage yoo xam ne liñ fi yàq ëpp na ñi ñu toj marché bi du du bàyyi faale ay kuréel yoo xam ne xamuñu buñ jóge ñoo fi ñëw filmé nañ leen buñ ko vérifié dana ko xam kilifa gi nga xam mooy borom dëkk bi gannaaw bi ñu joxee ndigal bàyyi faale pour ñu saytu li nga xam ne mooy dëkk bi ak li ko wër yàgg na lool yàgg na ndax joxoon na ab délai avant tey dañoo xam ne depuis le ba tey ñu doon egsi ñun ñun ñii nag tey lan egsi suñu kaw yàq na li fi nekkoon lépp mooy dëgg ñun ndigal dong la ñu wéyee amuñu lu ki nga xam tey mooy kilifa borom dëkk bi tey bu taxawoon ne seen kii relation dañ koy jox ba mat sëkk ñu am fii lenn. ñi jaar fii ci réseau bi def lii man de damaa xamul ñan nan waa ñi nga xam ne ñoo yor ndigal ña nga ca ña nga ña nga ca corniche toog di di di di di réunion parce que loo gis lu ne dafa am waxtaan nit boo koy jëlee fam nekk sax da nga ko bàyyi mu jël ay bagaasam jël lam fa am ba nga xamante ne ni luy am dana mën a tedd waaye dañoo ñëw rek di daw tourné bi doo ndox bi romb fee nga xam ne ndox mu neex la yàlla seede ne ne dañoo jël paaka bënn ko wallaahi lancim ay nit di daan seen doole di liggéey ay nit yoo xamante nii sa waay ñëw yàq ko ci loo xamante nii teguwul fenn loolu dekkul jaaduwul Baye Fall yi ñëwaguñu fii Baye Fall yi ci corniche bi Baye Fall yi ñu ngi ci corniche bi ay Samba booy ñoo fi duggu yàq ay Samba booy fi dugg yàq waaw gisuñu police gisuñu gendarmerie gisuñu kenn waaw gisuñu police gisuñu gendarmerie gisuñu kenn fi na nii yaa ngi gis bagage bagage yëpp yàqu na bagage yëpp yàqu na ndax délai dafa am da nga def